mooy bakkanab kii rey rek mm-hmm. waaye lu défendre bakkanab ki ñu rey mm-hmm. ndax dafay wax na ñaaray dee kon yàlla ne ko toppal fii déggoo li may wax ba ma ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab laa wax yéen amu ngeen xel moo woo maag yéen mm-hmm. waa bu ko wóoree péng ne bu reyee ñi rey ko dana ñoŋeel bakkanam bi ñoŋeel ga mu ñoŋeel bakkanam bi ci lay ñoŋeelaale bakkanam nawleem bi ndax yéen ñaar yàlla boole indi leen ci monde bii ngeen fay dund naka ngay amee fit wala ngay amee xel te yow nga am nday am baay moom mu am ko nga bëgg am ay doom wala nga am ko nga am soxna wala nga am ko mhm. moom nag yooyu yëpp nga xeñ ko ko yàlla nekkoon nag yow nañ la xeñ liñ ko xeñ rek mooy jëlee la fi mhm. loolu nag bu leeroon naññi ci bakkana ci ci ci ci xel yi ñëpp rek mhm. rey jeex fi waaye tey suñu Sénégal gii eh, li fi lu tumuraanke mooy nga xëy ba ngoon jot déggoo ku rey kenn waaye daanaka bu set booy déglu information yi tabaarakallah raay gi xew Pikine mm-hmm. ne yow lañuy jox xaalis bi nga dem di ko yóbbul waa ci vari bi ala kulli xaal bëgg ngénte tax nga dem ray ko ni ko information yi waxee barki démb li xew mm-hmm. da bëgg a baali sa mag mi tere la nga tàngal ndox sotti ko nit ki ray ko nangam ak nangam ak daal kenn xamut kenn xamut li xew ci ji jamono ànd ak nit di sa xarit ngeen ni ànd guddeeg bëccëg problème lu tuuti mégob cigarette téléphone crédit nangam ak nangam nga jaaree ca waaye loolu lépp leen wóor ni ku ray ñi ray la yóbbu la ci